su ma bëggee wax waxi biir dinañ wax ba ëllëg waaye li ma wax rek mooy biir yi Mustafen mënoon naa play man dama juddu fekkal ko ak suma pa force de ma gis biir yi moo ñi doon play waaye biir yi goalkeeper la doon play handball goalkeeper kon yàgg naa koo xam ba pare liggéey naa moom ba bi mu nekkee national coach man maay woon député am 1986 so xam naa ko waaye xam naa ne mun naa play mun naa baax na jullit la laabiir na xol bi baax na amul kenn ku seqoo moom te jiwul la taraanga taraanga nag du yee taraanga mooy respect lu lu nekk daal suñ amoon time ci laa laa mun a biir ci laa laa mun a break down ak li ma xam yëpp ci moom. waaye daal ci gàttal daal ñu ngi koo ñaanal mu yàlla xare ko àjjana fam ñu féete yàlla féete ñu fa waaye de xam naa ne man ku ko xam laa ku yàggaa moom laa plé nañ saa yu ma amee national team bi coach mu ñëw bi ci direction room bi ma may ko mu wax su ñëwee hôtel fekk ñu kàmp dama ko dee jox mu wax parce que lu mun a wax rek xam-xam la